Euh, monsieur Diop Cheikh Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. ñu lay fay bu baax et di am contenté di participer ci émission bi. Mm-hmm. ngay directeur centre Jacques Chirac euh, mu doon centre bi nga xam ne daf ci dalal ay nit yi nga xam ne euh, maanaam dalal xel la daal tey. mu am mbir mu am ci mim réew. benn nit bu daal di faat ay doomam laata moom it muy faat boppam tey nan nga jàngatee li ni mel. jàngat biñ ci am mooy que loolu jéye bu mag la. Mm. Euh, parce que nit ki bu demee ba toll foo xam ne dafa jàpp ne li mu war a def mooy faat ay doomam faat boppam mhm. euh, loolu situation bu jéggi dayo la boo xam ne nag jàpp nañ ne waroon na mën a ñàkk euh, bu fekkee ne ñu ngi sukkandiku ci bataaxal bi nga xam ne nit ki ci boppam moo fi bàyyi li ñu seetlu rek mooy dafa am ay jafe-jafe ci biir këram mhm. ci biir néegu séyam ak soxna su mu nekkaloon xëy mm-hmm. eh, na jafe-jafe yooyu moo dem ba mu toll foo xam ne moom ci boppam mënatu ko gérer mm-hmm. mënatu ko gérer yaakaar na ni mu ko mën a faje rek mooy faat boppam faat doom yi nga xam ne moom la am ak soxna yooyu mm-hmm. soos te loolu lañ jàpp ne nag lu mënoon na ñàkk la li muy wane rek mooy aussi que bëri na ci suñu kër yi fii ci biir société bi kër yoo xam ne ñu ngi dundu ay jafe-jafe yu mel noonu Euh, jafe-jafe yi bari na trop te bu fekkee ne taxawaay bi nga xam ne moom la ci askan wi war a am dëkkandoo yi ak ñi ko séq amuñu ko ci rek war na mën a jur lu mel nii mm-hmm. nit ñëpp nag dañu bokkul yam parce que euh, nit ñu bari bu fekkee ñu ngi ci yenn jafe-jafe yi xëy na mën nañ ci génne seen bopp Euh, te du am yenn njeexital yoo xam ne dinañ ko réccu mhm. waaye am na ñoo xam ne xëy na amuñu euh, kattan googu yàlla bindeewu leen noo xam ne bu fekkee ñu ngi ci yenn jafe-jafe yi dinañ am kattan guñ ko deko gu ko dépassé mhm. euh, boo xoolee waa ji nga xam ne moo def lii dafa mel ni ci catégorie boobu la bokk parce que dem na ba nga xam ne situation bi dépassé na ko mënatu ko gérer mu yaakaar ne noonu la ko war a mën a réglé mooy faat boppam faat doom yi mu doon loo xam ne dafa tiis la ci mhm. askan bi yëpp car naa Sénégal ñëpp am nañ tiis liñ déggee lu mel noonu mhm. duguleet ñuy dégg genre yi parce que déggoon nañ fi ku rey doomam kooku euh, sax dañ ko utal ay kayitu euh, nit koo xam ne xelam dafa dem waaye it ay mhm. crime passionnel yàgg nañ ko dégg ci même réew lan mooy waral ba nit egg ci extrémité boobu Euh, li ci waral loolu loolu bokk na ci. mooy li nga wax léegi crime passionnel. Mm-hmm. nit koo xam ne dafa dem euh, ba xolam xelam euh, am lu ci nekk loo xam ne yaakaar na loolu rek la ko mën faj. Mm-hmm. mais bu ñuy lu mel ni li koy defloo nit bari na. Mm-hmm. am na ñoo xam ne seen xel moo taqali ko ak ñoom maanaam dugg nañ ci ndof loolu mën na yóbbu nit. parce que bu xelam taqali ko ak moom. mun na ko yóbbu mu def lu mel nii. Mhm. Euh, am na ñoo xam ne nag seen xel tàqalikuwul ak ñoom. Mhm. dafa fekk ne am na lu ñuy dundu ñoom ci seen bopp mu nekk ci seen biir ñu koy dundu ñoom rek te xëy na sax keneen yëgu mhm. ñu dem a dem a dem a dem ba loolu ëpp leen doole. ba seen jëmm attanu ko seen xol attanu ko. seen xalaat attanu te muñ ci seen bopp attan nañ ko. léegi nag ñuy dem ñu yaakaar ne loolu rek lañ ko mën a fajee. am na foo xam ne nit ki bu demee ba yaakaar ba ba jàpp ne euh, suturaam ak wormaam li tubaab di wax honneur. Hmm. Euh, dañ na parce que bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xoolee waa li li nga xam ne moo ko dal bu ñu sukkandiku ba léegi ci bataaxal bi mu hmm. dañuy gis dafa doon koo xam ne dafa dem ba yaakaar ne. Euh, fii deseetu fi dara parce que honneur am daanaka ñàkk na ko ci euh, dem na ba sentir ne dañ ko wor hmm. ki mu seqaloon war na ko euh, honneur am jeex na et que ne nii rek la mën a faje loolu parce que dem na ba jàpp ne dundam fii ci àdduna xëy na amatul solo hmm. loolu nag dafa doon ay problème yoo xam ne lu jara bàyyi xel la parce que xëy na lii muy dund bëri nañu koy dund ci suñu biir société bi xëy na fii mu agsi ñooñ agsee guñ ci euh, waaye lii signal la signal la bu wane ne hmm. am na nit ñuy dund ay jafe-jafe yoo xam ne bu fekkee ne amuñ taxawaay bi war euh, mën nañ agsi ci lu mel nii hmm. donc loolu véritablement je pense que njàngat la war a doon ci société bi yëpp nii ñi dañuy faral euh, di wax ne dof yaa ci nit ñi wala suñu société bi dafa feebar ndax li ni mel mën nañ cee natt suñu société sax mën mën nañ ko ci natt parce que xëy na ñi wax ne suñ société bi dafa feebar euh, euh, juumuñu mm. parce que dëgg-dëgg buñu ñu xoolee dëkk bi jafe-jafe yi bari na mm. euh, bëri na ñoo xam ne ñu ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne ñàkk koom-koom moo ko mm-hmm. ñàkk liggéey moo ko waral mm. ñoo xam ne situation yi dund yu jafe la seen lekk demeewul noonu seen dëkkuwaay demeewul noonu feebare faju jafe na leen loolu bari na sénégalais yu mu dal mhm. loolu mën na jul ay ay mën na ay ay ay sentiment yoo xam ne xëy na njeexital du doon li gën mhm. euh, ñii nga xam ne aussi dañu nekk ci ay jafe-jafe di dund ay jafe-jafe ci seen biir kër mhm. ñaare duñ am taxawaay bi war euh, ci seen biir famille d'abord ak euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal sax taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a am parce que am na nit foo xam ne boo ko tolloo. Mhm. am taxawaay boo xam ne yaa ngi koy sentir ci sa kanam. Euh, yan yi mën nga ci bañ a àgg bu ñu jàppee li xew. Mhm. man jàpp naa ne euh, waa ji bu fekkoon ne am na ñu ko taxaw. Mhm. ay bokkam ay xaritam wala ay dëkkandoom yoo xam ne danañ partager ak moom jafe-jafe yi muy dund. di moom di ko delloo si di ko gënloo boppam di ko gëmloo ne lii loo war a mën a génn la xëy na lu mel nii du ci àgg. mais dafa mel ni loolu amuloon ci moom donc euh, loolu dafa wane ne effectivement suñu société bi jafe-jafe yi bari na war nañ xoolaat yu baree bari parce que euh, taxawaay bi ndimbal gi nga xam ne moom la nekk di soxla bu fekkee mu ngi ci yenn jafe-jafe euh, ñaare duñ ko fa fekk nit ki am na foo xam ne bu fa tolloo comme ni ma ko waxee sànq. Mm-hmm. bu fekkee amul taxawaay rek mën na fajal boppam ci noo xam ne. jëye yu mel nii lay jur. kon mën nañoo wax ne bopp sa bopp bi bokk na ci li nga xam ne moo waral mbir yi bëri tey yu mel nii. waaw loolu loolu moom loolu ñu mën a firndeel la parce que boo xoolee effectivement li nga xam ne noonu lañ daan dundee xëy na waxuñ ñu andi nañ daan dundee ci cosaan loolu mënatul ne àdduna bi moom évolué na évolution boo xam ne. Euh, la ñu suñ maam yi daan dund kenn xalaatul ne nañ ko delloosiwaat. Ah. xëy na delloosiwaat ko sax. genre arriération lay doon ci benn niveau bi. waaye li am solo mooy ñu jàpp ne nit ki euh, daal li nga xam ne moo am solo mooy que fu mu mënti nekk day jokkoo ak ay nit. Hmm. day jokkoo ak ay nit di waxtaan ak ay nit waaye nit koo xam ne yaa ngi tund bopp sa bopp comme ni ñu koy waxee. Hmm. yow ak sa soxna ak say doom ak sa kër rek euh, situation bu fu mënti am. ci seen biir la yem ci seen biir ngeen koy régler loolu mën na jur jëye euh, loolu mën na jur jëye nañu fexe effectivement que li nga xam ne moo amoon euh, ca cosaan mhm. euh, euh, ñu téye ci lenn yi parce que loolu lu ñu war a téye la fexe ba nit ki am ñu muy waxtaanal surtout bu fekkee mu ngi ci ay jafe-jafe boo gisee lu bari xëy na ñu koy sauver ci biir sëy yi c'est parce que ñi nga xam ne ñoo ko seq bu ñu amee ay jafe-jafe dinañ ci waxtaan ak ñeneen waaye bu fekkee dañ koy régler ci seen bopp rek mën na jur jëy yu mel nii te njàngat bi ñu am ci la xew mhm. comme ni ma ko waxee sànq dafa mel ni loolu moo manqué woon ci famille boobu dafa mel ni sëriñ bi ci boppam waa ci boppam mm-hmm. euh, ak xëy na soxnaam li leen li ñuy doon dund dafa mel ni ci seen biir rek la yemoon daawul ci waxtaan ak ñeneen te loolu moo jur yooyu mel nii. Mm-hmm. monsieur nga yor centre bi nga xam ne dalal xel la tey ndax cas yu mel nii yu jëm ci stress dépression da ngeen di faral di ko dalal. waaw parce que fii euh, centre nga xam ne nag ci lim gën a taxaw mooy di jàppale ñi nga xam ne dañu jëfandikoo mbiru sinébar mbiru mm-hmm. drogue mm-hmm. di leen jàppale pour ñu génn ci mm-hmm. ak di def ay activités yoo xam ne pour askan wi yeewu ci mbiru drog ba duñ ci dugg parce que loolu mooy li ëpp solo Euh, mais bu weesoo loolu danañ fi dalal nit ñi nga xam ne yeneen jafe la ñu am parce que fii du mbiru drogue rek la ñuy toppatoo léeg a nga dalal fi koo xam ne dafa am problème ci séyam hmm. ci biir këram ci ay dëkkandooyam ci fa muy liggéeyee eh, ay jafe-jafe yu mel ni dañ koy rencontrer jigéen joo xam ne dañ ko bundu xataal def ki moom li ñuy wax violence xëy na jëkkëram teg ko ko dóor ko gaañ ko mu andi ay problème hmm. yooyu mbir yu bari yoo xam ne dañuy dajeek moom fii am na mais li ci ëpp ñun li nga xam ne moom la ñuy def mooy li ma wax sànq rek li tubaab di wax accompagnement soutien psychologique loolu la ñuy def mm-hmm. maanaam déglu nit ki xam lan mooy jafe-jafeem et jéem ko delloosi jéem ko gunge ba mu romb niveau boobu parce que ni ku nekk euh, boo ko seetloo moom ci biiram sax am na capacité am na mën-mën euh, régler problème am mm-hmm. xëy na le plus souvent da ko dul gëstu wala da ko gëm mais fexe ba nit ki delloo si ci boppam xam ne moom ci boppam am na lu nekk ci moom am na potentiel boo xam ne mën na ko permettre moom mu dépasser situation mën na régler problème am mhm. donc ñun liggéey boobu dañ koy def dalal xelu nit ki nag loolu dafa am solo mhm. nit ki bu fekkee dafa nekk ci njàqare nekk ci tiis nekk ci tiit parce que nit ki ñun ay nit lañ rek parce que loolu daf ñuy dal ñun ñëpp léeg-léeg toll ci situation mel noonu foofu bu fa nit ki tolloo ba xelam jax-jax yi Euh, dafay am solo ñu delloosi ko gëmloo ko ne effectivement problème boo gis rek am na luñ koy fajee mhm. et nañ koy fajee moom ci boppam am na ci cër bu donc loolu dafa am solo ñuy gëmloo nit ñi ne problème buñ nekk war nañ ko mën a traversé mhm. fii lu ñu mënul régler amul loo xam ne nit kii jàppale nañ ko ci waxtaan ceeg moom mën nañ gis solution boo xam ne dinañ ko régler loolu moo ci am solo mais bu nit ki ba yaakaar ne fii problème bi kenn mënatu ko régler amatul benn solution. Mhm. mën na def jéeya. nag lu ñu war a mën a moytu la parce que li am solo mooy ke nit ki bu nekk ci jafe-jafe nañ ko delloo si nañ dalal xelam. Mhm. nañ ko gunge aussi mu jéem a xool naka lay génnee ki jafe-jafe boobu loolu rek mooy li am solo loolu bu manqué nag ci société euh, day andi ay jafe-jafe te dañu gis ne loolu xëy na ñu bari ci suñu bi. manqué nañ ko. dañuy nekk ci jafe-jafe te duñ gis kenn ku leen taxaw. et justement euh, dañuy dégg ñu naan stress ñenn ñi ne dépression ñenn ñi ne kii wérul euh, dafa am feebaru xel ndax yooyu lee sorante na wala benn bi moom mooy mooy tax ba nga àgg ci beneen bi. waaw xëy na sorante na jegante na à la fois. Hmm. parce que lii ñuy wax stress. Euh, daanaka ñu bëri dañ koy dund. Mhm. Euh, xëy na man mi di wax ak yow sax léeg-léeg sama liggéey jàpp ma wala léeg ma nekk si benn situation ma ne daf may andil stress. Mhm. Euh, waaw mais loolu daanaka ñëpp koy ñëpp koy dund. Mhm. Euh, mais li nga xam ne moom la ñu war a xam. mooy que stress bu nga xam ne dafa jógee ci nit ki nga xam ne dafa yaakaar ne dañ ko wor. ki nga xam ne dafa yaakaar ne honneur la ñu la ñu la ñu la ñu la ñu la mm-hmm. la ñu la ñu mm-hmm. eh, eh, nit ki nga xam ne dafa yaakaar ne dañ ko doyadel nit ki nga xam ne dafa yaakaar dañ ko xeeb mm-hmm. loolu mu doon loo xam ne da ko jural naqaru xol eh, bu fekkee ne sentiment yu mel noonu nit ki dajale na ko ci diir bu gudd ay ati at muy dund loolu muy doon loo xam ne daf koy dund loolu mën na ko yóbbu ci benn niveau boo xam ne mën na ko tàqali ak sa donc loolu gis nañ ñu bari ñoo xam ne tey tàqalikoo nañ ak seen sago ñu leen di wax dof euh, li nga xam ne moo ko waral mooy ay ati at dañu dajale ay naqar yoo xam ne ci yu mel noonu la jógee dañu dund ay souffrance ci yoo xam ne ci xeebaate la la jógee mm-hmm. yoo xam ne xëy na ci seen seen situation sociale sax la jógee mm-hmm. nit ñu ñàkk amuñu xëy na loolu doon luñ tiis ci ñoom mënaluñ seen bopp mënaluñ dundal seen njaboot mënuñ dundal seen waa kër mënuñu dimbale seen i waajur loolu doon naqar ci ñoom andil leen problème ñu koy dundu pendant une très longue période euh, euh, euh, parce que fii la léeg nga daje léeg-léeg nga dajal léeg nga dalal fi koo xam ne da lay wax li muy dund ci biir famille am gàcce la ci am boo xam ne xëy na na mu koy dundee moom rek moo ko xam. Mm-hmm. cest lu mel noonu. bu fekkee ni ki dund na ko pendant une longue période ko ni ma ko waxee mën na ko jural mu dem ba taqali ko ak sago waaye li nga xam ne moo am solo mooy que nit ki Euh, dafa am lu tubaab di wax gestion des émotions ou de gestion du stress maanaam jàng naka la ñuy gérer gérer suñu bopp mhm. bu fekkee ne yenn situation yi dal nañu ba andil ñu ay jaa jeexi jaaxa ñu xel wala ci ñu xol doon lu ñu métti loolu dafa am effectivement am njàngale la boo xam ne xëy na ñëpp jotewuñ ci euh, ba tax na nit ki daal dafa am solo Euh, que bu fekkee mu ngi ci yenn situation yi ñu ut ay pexe nuñ ko delloosi parce que bu dul lool rek mun na euh, jéggi dayoo yóbbu ko ci ndof wala mu yóbbu ko mu def loo xam ne euh, ëllëg mën na ku réccu parce que dañ koy assimiler même mhm. parce que lu mel ni xew démb ñu bari dañuy yaakaar ne waa ji ba mu koy def tàqalikoo na ak sagom mhm. wala dafa am lu ko dal xëy na loolu yëpp mën na ci ñàkk mhm. parce que man jàngat ma ci def rek mooy que dafa gérer ay stress dafa gérer ay frustration yu baree bari yoo xam ne moo ko yóbbu ci lu mel noonu boo jàngatee lettre bi nga xam ne moom la fi bàyyi. Mhm. Cheikh Diop mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi leen di jaajëfal ñu kontaan nañu bu baax. Mhm. yéen waa Rewmi FM yéen suñuy partenaire ngeen. dëgg la seen wet. saa ngeen ñu soxlaa rek dinañ jéem a teewlu ànd ak yéen. ñuy rafetlu disponibilité bu bu baax a baax. merci beaucoup